bilaay barke du caaxaan barke du caaxaan bilaay barke du caaxaan yow de invité wuñ la parrain nga parrain du caaxaan Met Sob li lan la King Oza King Oza barke karim invitation indiwu la fii bañ la woowee nga ne doo fekk si kenn yaa fi indi sa bopp. ñaa ak dégloo. karim. Mara nga ne. ma ne ma ne président dafa civilisé. Eh. ba muy am 16 ans karim. 2016. 2016 wala a 16 yoon nga fi ñëw de ba nga fi ñëw yaa fi indi sa bopp beneen yoon bi sa nawle la fi indi sa xarit sa Simon. Ça c'est mon gars sûr, c'est mon ami Papi Steve Igor. Les vendredis, samedis, dimanches. à Créteil, euh, papis. <laughs> wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay. Hmm. Oui, je connais.